asalaamaaleykum mbokk Star TV ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di sàkku ci ñaan saa su am mbégte fekk si leen ci biir kër gi waane dañuy jël nuyoo bi yëpp takk ko jox yi nga xam ne mooy suñu nijaay borom kër gi di ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar bu baax a baax a baax fàtte wu ñu Sara Camara fële nga xam ne mooy suñu directeur comme ni ma koy waxee Sara sargal nañ la ñaanal la yàlla sàkku ci yow nga ñuy ñaanal saa su ne ana mis tabax bëgg ñeebe ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar bu baax a baax di ko ñaanal di sàkku ci moom ñaan bu baax baax a baax balaa maa jox sama gan yi di nuyu damay nuyu ki nga xam ne sama sista xol kooku mooy kan Daba Ndiaye fële ca Tëngéej muy def xeeti baax baax yi ci jigéen ñi macha allah di leen jàppale saa su ne kon Daba Ndiaye dama lay ñaanal yàlla di sàkku nga ñuy ñaanal yàlla di wax sa tànk fi nga ko teg noonu la jàppale jigéen wax dëgg yàlla képp ku ko def yàlla da lay jàppale kon jàmm rek ngay am ndax su def def yu baax yi ngay def wër na àdduna wërngal képp kon Daba sant nañ la gërëm la bu baax a baax waaye nuyu Mariama liñ naan ah, ku lu baax boo ko waxut buy lim ay Mariama xeeti baax baax yi ngeen xam ne tey eh, li nga xam ne mooy robb bu baax bii ma sol eh, ci li nga xam ne mooy jongo ma couture Mariama sanseel ma ba ma jekk na ma tata Binta tey dama bëgg sa programme bi géj na waane dama bi ma solal la robb bu rafet kon jongo ma couture Mariama sant nañ ko gërëm ko bu baax a baax a baax ñaanal ko yàlla na yokk ndax bépp jeeg boo xam ne bëgg nga lu baax da ngay foofu ci li nga xam ne Jim Johnson fekk fa Mariama mu ñawal la xeeti robb yu baax a baax a baax musóor gi nag duma ci fàtte ki nga xam ne mooy Adja dëggeen dëggeen maire bu Gambia. Ah. moom musóor noonu def musóorum bu baax ne ma anti binta tegal ci sa bopp nga def lu la neex ba kenn laal la kon maa ngi nii jàkkaarloog yéen géej fi loolu di jéggalu bu baax a baax di xam ne jafe-jafe àdduna rek la waaye dellusiwaat nañ ci biir kër yi fas yéene ne indil xeeti baax baax yu bees tàq ngeen koy seetaan tey nag ñu am ay invité yoo xam ne euh, ñoo salla man bu ma nee Fat Sagnang damay laaj Fat Sagnang ndax moom moom Sagnang bañ ko koo tuddee Fat Sagnang <laughs> waaye fàttewuma ki nga xam ne mooy Ndeye Marie mii nga xam ne tamit moo ma féete sama ndeyjoor di sama xaritu xol moom sant naa ko gërëm ko waaye bu mu nee dama naan sama yaay waaye maa yaradi ko dama naan yaa mm. nuyu naa la sant la gërëm la <laughs> jox la kàddu gi nga nuyoog waaye Star TV. asalaamaaleykum Adja Binta maa ngi lay nuyu bu baax Adja Ndeye Marie lay nuyu. bu baax di nuyu Star TV. commencé ko si seen bi ba si staff yi yëpp bàyyi ma kenn nuyu naa leen yéen ñëpp. di wax asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah ma fàttali kii nga xam ne ni koy catal noonu rek nday mari ñaareel catu jëkkëram lañ kenn xam ay dënn xoli jëkkëram xol bi ñun ñoo moom tax ñu xejal leen ci kon nday mari luy indil nuyu waa kër asalaamaaleykum yàlla di julli ci yonante bi sang-sang yi maa ngi gërëm sama ñaari waajur di leen ñaanal fa ñu nekk ah, yàlla di yokk leer seen bàmmeel maa ngi nuyu ñu ma fekk fii nag rawatina borom kër gi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ziyaare ñu fi nekk ñëpp rek képp ku fi nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay macha allah. jërëjëf Ndeye Marie ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax nee naa lu yëngu la ko yëngal la ko ëpp doole am li nga xam ne tey ñu war koo waxtaanee fii ci biir kër gi nee naa jonge <laughs> balaa ngaa jonge da ngay xam luy jonge de ndax daanaa dégg eh, nee na ko mel ne jonge da ngay boyal ànd ba mu boy nga toog ca sa taat di ñor te doo ko tudd waaye bul yaakaar ni jonge mukk da nu la neex nga koy defee ak nu la neex ngay waxee rek mooy jonge mu indil jéeg nga xam ne mooy musiba naaru laay ci jamono ji yëpp ñu di ko seetlu euh, yaay Fatsa Niang ñu seetlu li nga xam ne mooy jigéen ñi nee nañ dañu jox bay jël tabac di ko def ci seen kanam dañuy neexal sëy bi te tey mu mujj ci ay hôpital mujj ci ay jigéen ñuy dee ñu seetlu li nga xam ne mooy tabac li mu rey ci jigéen dafa bëri li mu rey ci li nga xam ne mooy jigéen ñuy mucc tamit dafa bëri euh, ñu def ci gëstu seetlu ko ba yàggul dara loo xam ne ñun ñoo ci teg suñu bët loolu est-ce que xeetu jonge la euh, jigéen ñi buñ ne joŋee jigéen bu nekk rek li la yàlla sàkkee loolu nga war a jël kon man dama ne joŋe si set la war a njëkk yi mhm. parce que jigéen bu nekk da nga war a set mhm. te set dafa umba lépp mhm. kon tey buñ ne joŋe tey yow jigéen nga war a jël liy tabaa même bu dul tabaa sax ay yeneen a yeneen di ko war a def si sa kanam man dama ne loolu lor sa bopp la loolu du jonge parce que nit ki boo jongee da nga war a set xeeñ lu neex loolu rek dafa neex si jonge kon jonge xol loolu dara rawut loolu góor gi nga xam ne muy sa kër nga war a ñëw pour won ko jonge yow nga ñëw def yeneen xeet yoo xam ne jël yeneen a yeneen def si sa kanam lor sa bopp lor góor gi kon mm. loolu du jonge loolu di jonge loolu loolu loolu musiba la mhm. te musiba boo xam ne yow mi ko dem uti yow miy jigéen bi indi ko def ko ci sa kanam lorloo sa boppa rek de ki nga foog ne da koy bégal ci sa jonge mhm. loolu yow jongewuloo mhm. da ko def lor keneen kooku bu fekkee ne dafa am ñaari jabar am ñetti jabar yow kenn nit nga dem jël jël liñ ne tabaa mbete leneen def ci sa kanam dinga nga lor góor ba pare loolaare ay jabaram kon yooyu dafa nekk yoo xam ne na ko jigéen ñi bàyyi xel te xam ne loolu àdduna bi léegi ni moo demee yàlla ni mu la bindee ku nekk rek ni la yàlla bindee munoo koo weesu ni nga war a mel rek yàlla def na ko sa ba ngaa judd kon nag boo ci naree def leneen ne da ngay neexal loolu man dama ne du yoon liy neexal jigéen sangul ba set raxas teppax yi raxas fu nekk ba mu set wécc loolu daal boo ko raxasee ba set wécc ah. xet gu neex gi moo joxe rek ah. dafa neex si jóge ah, kon leneen waru cee waaw leneen waru cee am kon seppa bii ñu am nii mhm. jëlal sa seppa di naan wallaay wallaay seppa di naan ba nga set wécc wallaay wallaay du dégg mhm. tey sombi bii sombi bu weex bii nii soo gisee saraxule yi taamu ko mhm. buñ la takkee sax juróom ñaari fan ba mm-hmm. ak cuuraa bu weex lañ lay jox nga lekk ba suur ñami ndox day mm-hmm. tooyal jigéen mm-hmm. kon ñami ndox boobu di tooyal jigéen lan la nit di doyee taba am na yeneen a yeneen yoo xam ne day tooyal jigéen kon loolu doy na loolu doy na nit ki caf ko gi yaa ko def si sa bopp nit ki boo yemee ngay yem si sa jëkkër yem fa si moom rek foog naa ne sa caf ko du dem nit jëkkër bi nga xam ne moom moo la bugga mm-hmm. doon ki nga xam ne mooy sa jëkkër mm-hmm. bu la takkee tey mm-hmm. nga yem si moom defe naa caf ko gi moom rek a koy am waaye boo ko bugg a melante ak leneen nga ne yow di nga dem indi leneen ne da ngay def pour gën a saf waaye yemal ci kenn ki rek sa caf ko du dem ku yem ci kenn rek sa caf ko dafay des <laughs> kon loolu la na jigéen ñi def noonu rek caf ko gi des fa eh, jërëjëf Fandiaye Sagnang borom Sagnang nuyu nañ ko ziar ko bu baax kontaan ci moom bu baax a baax ndax li mu wax am na solo set dañ ko taamu ci jigéen waaye nag du ma xuus demagum ci Ndeye Marie te yu ma ki nga xam ne mooy suñu anti suñu yaay yaayu fédération sénégalo-gambienne women mm-hmm. kooku kan lañ koy wax Ndeye Awa Kane mu ñibbisi fii ci biir Gambia ñu wax ko welcome biir Gambia kontaan nañ biñ la déggee ni ñibbisi nga macha allah jigéen ñi maroon nañ la ndax yaa leen a jox ndox bi leen nga xam ne moo leen di mandiloo kon Ndeye Awa Kane ñu ngi lay wax welcome waaye fàttewuñu yaayu ministère ay yaayu du ma tudd loolu soxla nañ ko de <laughs> ana antingu yi <laughs> ana antingu yi borom ah borom ah <laughs> antingu yi nuyu nañ la ziar la fàttewuñu suñu yaay jooju sëy bu baax a baax ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax ak képp koo xam ne jigéen nga nekk ci biir fédération bi rek nuyu nañ la ngeen nekk ay jigéenu jàmbaar yoo xam ne ay royukaay ngeen waane anti safi sama nguuru soldaar gi jeexagul de maa ngi ñëw indi la lu méttee métti nga ciy xëy di ci gont macha allah waaye ki nga xam ne nday mari ñaareel musiba jëkkëram oh, loolu la koy tuddee nday mari buñ nee jog xam nga yenn saa yi ñu ne aawa ci biir kër mm. ah, xëy na yaay la ci biir kër yu bari di ko def ndax doom yay màgg ba yenn yi sax du ko mën a tee def du ko tal waaye yéen ñaareel yi nga xam ne yéen a yor kër yi ne nag koy gësam da ngeen koy wàcce façon xeet bu ne ngeen indi ko ci biir kër ngeen dem nag ba fori tabaar lan mooy tabaar tabaar ma yaakaaroon ni benn xeetu poone la boo xam ne góor ñi ñoo koy tux <laughs> léegi bu demee ba jigéen ñi dafa nekk comme drogue si ñoom suñ ko jëlul balaa ñuy sëy sax du ñu am jàmm foog ñu wuti ko mm. est-ce que loolu du musiba li nga xam ne mooy société jigéen ñi ci ji rawatina ci jigéen ñi musiba la musiba la Adja Binta fi nga daanale bala ngaa daaneel sax foofu laay jëlee mm-hmm. ndax ki waral lii yëpp tey buñ ko santu rek duñu gor mm-hmm. te mooy Adja Ndeye Awa ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax moom suñu président ndax tey Binta su ma la xamee mu neex ci sama xol lool lool lool nday awa kanata fandiay sagna ngi noonu la tey bu ñu xamantee bu suñu ànd neex tey yàlla ak moom la kan nag buñ ñu toll rek di ko ñaanal li nga xamante ni mooy en bi mu en te en jigéen dafa metti yanu ay jigéen dafa metti rawatina macha allah macha allah jigéen yoo xamante ni jigéen yi takku lañ kon Adja Ndeye Awa ñu ngi lay ñaanal en bi yal na ko yàlla oyofal yal na yàlla oyofal di jaay rasulillahi loolu rek lañ lay ñaanal ndax jàmm jooju ñu ngi la koy ñaanal saa ñu xëyee yàlla jàmmal la ndax sa jàmm mooy suñu jàmm kon yal na ko yàlla jàmmal foofu rek laa bëggoon a euh, dooree tuuti bala maa ñëw ci jigéen ñi fañaay comme ni nga wax rek aji faatu li nga wax rek foofu lay daanale set mooy lépp set mooy lépp jigéen gën a gën a gën a sawar mooy jigéen ja set jigéen gën a mën a euh, gën a mën a fonk góor mooy jigéen ji set man dama ne sama aye huit laa koy doore eight o'clock laay door sama aye maa ngi xool ruq-ruqaati néeg maa ngi laali darab ya rawatina darab yu weex ya ma war a fanaanoo maa ngi laali darab ya ka lalaat maa ngi xool fépp nag boo xamante ni sama jëkkër war na faa mën a teg boppam rek muy xëy giñ lu neex man dama ne ah, safal ñàkk xam àddina la ñàkk xam àddina ndax koo xam àddina dëgg gis saabu ordinaire bi la muy def ci jigéen doo xalaat mu ko safal raxasal sa kanam ak saabu ba mu set loo ko jox nag mu comme xeeti baax baax yi nga laal léegi gooy bii di ko xooj di ko naan lu ne la sepp bi nga wax sepp bi bala nga koo xam dëgg nga jël ci gooye tàmbal ci gooye di ko naan dalay raxas ba nga set boo sawee sax xeti xeti gooy bi day ñëw dara a neex loolu am na loo xamante ni dama ni di ko def ñàkk xam àddina la mhm. mooy lan di jël loo xamante ni lii ngay jël xamuloo ban loraange la lay indil bon loraange la lay jox te loraange gam lay jox mën nga koo liggéeyal sa bopp mhm. mooy lan di togg lu neex boo xasee bay togg lu neex foos foos safalu jigéen rek mooy togg lu neex. njëg ba mu baax. mooy togg lu neex sa jëkkër fu mu mënti dem sa xel day nekk ci yow. togg buñ ko mën a toggal ba lay ci dugal loxoom sama xel danaan ñëpp di sama donga ma ja loolu mooy safalu jigéen. di ko ñaanal sama mbokki jigéen ñi nañ leen xoolaat suñu biir nañ leen xoolaat suñu bopp. ni ñuy xoolaatee suñu bopp mooy nañ jël li nga xam ni mooy sëy bi téye ko suñuy loxo. man sama jëkkër dama ko dama ko téye ci samay loxo macha allah. Hmm. tele laay waxee. Hmm. dama koo téye samay loxo. sa fukki loxo ndox ba muy naan sa xale du ko ko jox. wóor na maam Serigne Babacar mi may noyyee ndox ma muy naan sax xale du ko ko jox rawatina lekk ga mu war a lekk invitation neexewu ko nag garab ba nga ma invité ni ma tey alxames la ma ni la tey baaxul. ndax alxames gi dafa tombeek sama ay. wutub xaalis ni mu neexee wutub xaalis gënalu ma ko. amul lu ma jaralu sama sëy bii. balaa loolu nag bu sey bi passé nag leneen ak leneen mën na caa tegu muy lan mooy suñu ñaq mooy ñun ñi nga xamante ni ñooy jigéen ñi mm-hmm. la ñuy daw di ko woddoo mooy ñaq mm-hmm. te ñaq bi mooy lan mooy la ñuy dooleel mm-hmm. soo déggee sama jëkkër laay am damay ñaq jigéen ba la gën a dàq ñaq ci jëkkëram la yem ndax lépp lu muy mottalikoo rek moo koy liggéeyal boppam lépp lu muy mottalikoo rek moo koy liggéeyal boppam kon maa ngi eewaat sama moromu jigéen ñi nañ bàyyi safal li muy tabakoo bi yëg muy yi ñuy jaay ca marché baak muy yi yiloo yi ñuy def ca weer yaak yëpp yëpp a yam amul benn bu ci baax amul benn bu ci jaay jigéen ñi léegi bala ngeen a yërëm ñuy men soreet bu ñuy men soreet façon jàngoro métti bu nekk nañ koy jànkonteel ndig lan la ñuy jëfandikoo la ñuy jëfandikoo jigéen na ci jigéen ñi tey boo waree jur ëmb sax jur sax am na ñoo xamante ni jur sax problème lay doon ci ñoom ndax infection bu ne dinañ ko am mhm. te infection mënta ànd ak jurum doom rawatina ñun jigéen ñi wujje da ngay lor sa bopp lool sa jëkkër loraale naw sa nawle bi nga xamante ni moom ngay jëflanteel te lool boobu jëlewuñu ko fenn lu dul ci li ñuy jëfandikoo kon Adja Binta nañ xoolaat suñu bopp bu baax a baax a baax nañ mm-hmm. xoolaat suñu bopp mm-hmm. jërëjëf Ndeye mari sa wax am na solo macha allah euh, yal na yàlla xeeb dolli ndax liñ ne euh, jonge euh, du nekk nga war a jonge déedéet mm-hmm. wax ju neex sax jonge la waaye nag boo yaakaar ne yow boo xët-xëtee bu sa jëkkër ñëwee yow xët-xët till till rajax rajax ba ngoon nga yaakaar ne lal bi rek mooy sëy déedéet balaa lal bi léwtoo combat sax boo koy def ca arène ba foog nga bëri mhm. balaa ngaa bëri foog nga léwtoo foog nga sangu ca ngaay yi foog nga nangam foog nga nangam balaa nga àgg ca jéll ba mhm. kon jéll boobu balaa ma cay egsi dafa am waajtaay boo xam ne moom la jeeg war a waaj waaye mhm. du dem ca marché ba rek nga gis maire yor potam ak sungufam takk ko naan la tabaa la boo ko defee dina dagg socca dina la def nii dina la def nii nga dem yenu ca lor sa bopp lor sa borom kër lor say wujju nekk na loo xam ne ñun jigéen ñi war nañ koo bàyyi man lu yàggul dara dama cee teg sama bët ndax nee naa balaa maa wax damay am li nga xam ne lu ma leer la dafa am koo xam ne xëy na dina ñu seetaan euh, mu jël tabac boobu bi mu ko defee làmmiñ bi dafa damm bu mënatu a wax tuuti mu dee hôpital lañ ko mujjee yóbbu mu nekk loo xam ne bu nekkee tamit dafay mu ngi li ci ëpp mooy loraange lañ ci am euh, Fadjaye Sagnang tey nga gis ni tabac boobu ni muy def ci jigéen bi mën a damm làmmiñ bi te ñi ma ko ñi ma ko euh, wax ñi nga xam ne ñoo ko yuus nee nañ day tàngal sa biir bi jër mel ne safara moo ci rek est-ce que mën ta jur kan sax parce que mën na togg sa butit yi mu nekk ay góom mun na togg sa kanam butitu njurukaay bi nga xam ne tey Euh, dañuy seet anytime di xool ndax jigéen ñi seen butitu njurukaay amul cancer tey boo jëlee loolu ñuux ko li nga xam ne mooy sa kanam est-ce que mënu laa indil cancer. ah Adja loolu moom lu nekk xëj na si. Mm-hmm. lu nekk xëj na si. loo xam ne maire yi. ak paa yi dañ koy tux mm-hmm. yow nga jël loolu di ko def sa kanam. Mm-hmm. loolu dara waru koo jar. tey feebar boo ci mun di am. yaa ko yóbbee sa bopp. jigéen ñi nañ bàyyi loolu. safal yi ñuy def. ak tabac yi ñuy def amul njëriñ loraange rek la mm-hmm. soo seetee tey liy bégal sa jëkkër loolu yomb na jongoma rek bégal na sa jëkkër sol sa xartu nga jongoma wu rek taxaw jëmm ji jomma romba rek xet bi neex rek dafa dafa mm-hmm. dafa dafa dafa bégal dafa bégal borom sa jëkkër loolu loolu bégal na sa jëkkër mm-hmm. kon jigéen ñi li war a bégal góor ñi dafa bari góor ñi def nañ leen def comme bébé. Mhm. Mhm. soo leen defee bébé. wax ji ngay wax rek. Mhm. bégal na leen. dëgg dëgg. nit ki tey comme léewtoo bi ngaa wax nii bala nga nekk sa jëkkër di nga léewtoo def yii def yii. loolu yëpp dëgg la. waaye góor. comme xale la. boo ko naxee rek am ko. waaye am na nooy defee góor. tey boo ko defee lu saf. jël loolu def sa kanam mu lor ko. yow sa jonge du ko gisati. su boobaa lor nga sa bopp du dëgg. su waree ñëw si yow sax su amee yeneen jabar da koy xalaat mhm. nga dégg ah kii de lim ma def keroog dafa mhm. saf lu a nga xaw ma lan lay def tey mhm. yow su boobaa jonge gam du ut fu la yóbbu amul njëriñ te pour nga indiwaat kooku mu ñëw day metti da lay ragal kundomin rey sa maam olof yaaya ko wax soo seeni ñuul di nga daw bay nga daw macha allah nañ bàyyi xel ci loolu <laughs> di bi di nuyu anti Ndeye Awa Kane di la wax welcome madame président suñ président bu baax bi nga xam ne tey moo ñu jokkale ñun ñëpp wallaay wallaay moo ñu boole ñun ñëpp tey mm-hmm. bañ mun a xamante mm-hmm. buñ toogee fii tey yàlla nday awa kan mm-hmm. man a anti nday awa suma anti la suma goro la ni ajaa mi mi yar muy siya suma raka te ajaa boobu may premier njëkkeem kon man fédération bi si kaw sa kanam. macha allah dafa indi xamel. Mhm. indi booloo. Mhm. nit ñi nekk benn. Mhm. te anti ndey awa yaagaa nekk jàmbaar. nekk jigéen góor. macha allah takka ndigaam di liggéey. boot ñoo xam ne nasaxuñ. parce que nit ki tey fédération yi bari nañ. waaye ku nekk tànnasi bu la neex la rek. wallaay wallaay kon ñun anti awa moom lañ tippoo te moo ñu saf. te xam nañ moom mooy kan. gis nañ moom mooy kan. gis ko démb gis ko tey. wallaay wallaay kon man dama bokk si ñum yar. kon nit ki boo nekkee si dëkka gis nga lu ne. gis nga fu ne mhm. kon ki nga gis mhm. xam mooy kan mhm. xam luy jikkoom boo ko toppee rek doo ko réccu kon jërëjëf anti ndey awa tey buñ toogee nii yàlla ak yow yaa ko waral kon jërëjëf ñu ngi lay jërëjëfal te di la ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci li nga wax ci ndey awa kan nee naa géej mbambulaan la kenn mënu ko jeexal yàlla na ko yàlla defal jàmm ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci bureau exécutif bi yëpp buñ nemee dañuy juum waaye nee naa <laughs> anti sëy anti nday sëy na bu bu ma nee waaye anti safi xam ngeen fa may waxee war naa gaaw nag war naa gaaw de <laughs> doy na waar mm-hmm. Euh, waaye nag euh, du ma fàtte di nuyu ki nga xam ne mooy Pape Amadou Gueye <laughs> jéeg war na laa jege de fi mu toll sedd baa ngi ñëw France sonal na la lool lool lool loolu waaye xam naa ne tonton Ndiaye moom mu ngi lay dóor xeer bu rëy rëy rëy ndax fi mu toll moom soxna mu ngi toog ci wetam waane yow moom toogal foofu rek wéttali ko glace bi ah, di nga xam ne lépp dëgg la bu ñibbi si Sénégal rek fekk fi xeeti baax baax yi wala Gambie nga fekk fi xeeti baax baax yi ñu suqali la waane toogal bil France rek coono gaa lay metti fi mu waaye Ndeye Marie Euh, tey buñ ne jeeg ci biir këram wala ñu ne jigéen ju baax ci biir këram euh, ñu koy waxtaane nag fii ci plateforme li nga xam ne muy pénc mi ndax lépp la ñuy indi ci biir pénc mi pour waxtaane ko waaye Ndeye Marie sedd bi jub si mm-hmm. buñ ne sedd bi dinañ ne cuuraay. Uh-huh. dinañ ne sarxatan dinañ ne sër xeeti xeeti baax baax yi nga uh-huh. xam ne moom la jigéen ñi war a bégale seen i yi uh-huh. waaye man nag tamit dama naan allaaj yi tamit war a teel a wàcc di bégal seen soxna. ndax bu seen di jotee sa sa jabar lal ba mu jekk. taal cuuraay ba cuuraay li sàlli si néeg bi te gisu la mhm. bu yàggee fitna lay indi ci biir néeg bi mhm. te yàlla nañu yàlla musal fitna yi biir néeg mhm. sa saar gi nag nga day mari nga xam ne <laughs> yàlla musal ci yéen yaare yu mel ni yéen <laughs> yéen day mari nan ngeen di waajaaye waajtaayu seen macha allah rek Anta fi nga daanele rek Adja fa yëkkatee mooy lan ah, nga ni dangay cuuraay ba mu taali jëkkër ja guddee àll jëkkër bu guddee àll rek ci yow a Fandiaye miinalal sa jëkkër sa bopp miinal ko lu neex miinal ko ci xeeti baax baax bi jëkkër su wàccee day yàkkamtee ñibbi te bu ñibbee bu génnee te këram rek subaati la man de loolu la ma yàlla taseel kon maa ngi ñaan yàlla jigéen ñëpp tam taseel góor ñi mel noonu ndax li gën a neex waaw wóor na yàlla wóor na yàlla góor ba ca gën a góor ba gën a neex mooy góor ba ngay ba ngay séntu mu wàcc heure ba mu war a wàcc yàkkamte naa wàcc ba ñibbi këram wóor na yàlla ndox sax du ko naan ci biti yow nga xam sa alaaji xam sa alaaji xam ko bu baax a baax a baax bëgg-bëggam su nee tëla looy njëkk a jax sëñ bi jaajëf waay boo gannaaw jaajëf ak soo euh, poti kaasi ndox beeg sukk ci suuf benn lay doon wóor na xam Mouhamad rusuma ci samay doom rusuma ci samay doom comme ni nga ko waxee rek Adja Fatou jëkkër xale jëkkër góor ñi ay xale lañ ay bébé lañ ay bébé rusuma jël samay tànk jëkkër jël sama ndox tàngal ko ba mu nugg jël samay tànk jëkkër teg ko ci sama pooj bi jël serviette bu weex tàllalal ko ci ah dàmp ko ba mu war a dàmp jël sama karité gii ndox ma jiital naa ci xorom ak tuuti biig bakin powda xam ne sama jëkkër ji sonn na jël ca xooj ca sama tànk yi ba xamante ne tànk yi ndox mi dugg na ko nga jëlaat teg ci kaw dàmp ba nga xam ne dàmp nga ko sa jëkkër day yàkkamte ndax coono ci tànk yi góor ñi dañuy sonn góor ñi dañuy sonn wóor na yàlla da ngay toog ba ci yàgg nga naan dëgg dëgg dëgg dëgg góor ñi man amul fajar bu may julli a du ma ñaanal sama jëkkër waxtu yëpp sax laa emale ndax dañ sonn ndax dañ sonn jigéen ñi dañ war a bàyyi xel góor ñi dañ war a bàyyi fitna góor ñi war bàyyi xel góor ñi góor ñi dañ sonn de góor ñi dañuy wax naan tey góor ñi góor bu dee rek tey jigéen na la rey. Uh-huh. wax na dëgg. xoola coono ba ca xoola coono ba ca ut. bu school ubbee góor ñaa ngee kërti kërti sama doom yi school ubbi na. Uh-huh. ña ngi ca schoolin ba bu ñu jógee school ba ña nga ca daw dépense te góor dëgg du bëgg dara lu manqué këram. Uh-huh. góor dëgg bu bëgg dara lu manqué këram. kon jigéen ñi su maa ngi yeewaat sama mbokk jigéen ñi nañ góorgóorlu suñu jëkkër yi. nañu góorgóorlu suñu jëkkër yi jàppale suñu jëkkër yi wut neex na lool. wut dara dàq ko di daw rek dara dax ko waaye am na waxtu boo xamante ne nañ ko jox seen jëkkër yi waaw laay billaahi wallaahi am na waxtu boo xam ne nañ ko jox góor ñi sedd baa ngi ñëw comme ni nga ko waxee nañ génne wan mbàjj yi nañ génne mbàjj yi tey mbàjj boo fóot mu wow naaj bi tàng na jëpp macha allah ba bëccëg bi naaj bi day tàng tàng la ba mu tàng suur ko goye ba mu xeeñ suural sa gowee ba mu xeeñ lem ba mu baax teg boo lalee sa lal ba mu ba mu laal ba sa lal bi taali ñeret jëlal sa sa mbaaj lem ba mu baax teg sa boori lal bu la dara bett bu la dara bett et après c'est combat da ah, nga koy laytoo da nga koy lawtoo ah bàyyi ba guddi rek nga ne xaaral ma wala yal nañ yàlla te loolu sax léegi amatul léegi jigéen ñi macha allah binte léegi jigéen ñi dañuy yeewu léegi kala karee nunux nanax ma ngay nunux nanax jigéen ñëpp a yeew ah jigéen ñi léegi macha allah fanjaay jigéen ñi dañu am jigéen ñi léegi dañu def fekk seen bopp uh-huh. jigéen ñeen daan edda ka eddaat léegi du ñooñu léegi jigéen ñëpp a eew képp ku doon nelaw fi mu ne eew nga ndax boo nelawee rek ñu nangu sawaay waay sooy nelaw rek ñu nangu sa waay naam mm-hmm. ba léegi dañ sàggan dañ sàggan ba tey ñu ci loolu mm-hmm. parce que man jigéen ñooñu du ma leen di mën a understand mm-hmm. because yow jigéen sëy jaamu yàlla la. wallaahi jaamu yàlla la. teg si war a jaamu yàlla. Mm-hmm, teg mm-hmm. boo sëy jaamu ci xool kenn. déedéet comme ni nga waxee rek mm-hmm. sa jëkkër bu egsee. xooj ay tànkaam. wallaahi. chéri ma sa coono. na métti goo xam ne yow jigéen booy daw suba ak jigéen lu ñu war suñ kër yi la. wallaahi góor ñi ñooy def lépp. lépp ñoom la nga am jigéen joo xam ne nit nit ki boo ko buggee. Mhm. day doon sa genn wàlla. Mhm. doo xaar sax mhm. toujours muy def. léegi léegi yow miy jigéen ñi. amal nooy def. wallaahi parce que góor tam am na lu muy seet si jigéen. ndax am na jigéen yoo xam ne xorom sa bu jeexee. dinañ laaj yi waajee wallaahi nañ xaar seen jëkkër. dañ koo laaj seen jëkkër loolu bokkul si xeeti. baadoola la baadoola. loolu bokkul si xeeti. loolu baadoola la. jëkkër ji nga xam ne moom ngay seyal bu la leeree ne jëkkër ji tey moom la ma yàlla booleel. Uh-huh. ñu jur ay njaboot mbete juru leen ay njaboot yàlla moo leen boole ak moom. Uh-huh. tey bu la yàlla booleeg moom seen wërsëg tey bu àndee. Uh-huh. yàlla bu boolee seen wërsëg bu ànd tey. mun naa def li nga def li du ñàkk fayda. wallaay wallaay tey soo waxee ñeena jigéen ñi liñ ko mooy. yow yaay nangu lii da nga ñàkk fay soo ko dimbalee mu joxe bi ci ko si biti mm-hmm. loolu fuñ ko teg déedéet fenn yàlla su bindee ne jëkkër ji ngay sëyal il faut mu am yeneen jabar mm-hmm. munoo ci dara allah kulli xaal def ko day am wallaahi wallaahi jigéen ñi nañuy toppatoo seen bopp balaa seeni alaaji di wàcc dañ war a toppatoo seen bopp mhm. seen alaaji wàcc na wàccuñ dañ war a toppatoo seen bopp mhm. sanse ba jekk fu la gan di beetee doo ko xam tey bu fekkee ne sa jëkkër mun naa fàtte dara si kër gi ñëw fekk la nga mel neneen doo lal ah, doo bale doo fob man de sama sama jabar ji de nii la mel wallaahi dama am suma benn xarit yi Sénégal yi suma benn xarit yi Sénégal yi mhm. benn jour dañ jógee États-Unis ñëw amuñ vol pour ñibbisi léegi ñu fanaan fa biñ fa fanaanee ñuy waxtaan ma fekk ko mu makki yow guddi ma ne ko waa yow. makki yow bii lii ko lan la mm-hmm. makki yow mu ne ma ah góor ñi wóoratuñ. wallaahi mu ne ma gis nga góor ñi. Mm-hmm. mu ne ah mu ne ma dañuy tëdd ba guddi di la niir. wallaahi booy tëdd da ngay makki yow bu baax. Mm-hmm. bu baax da nga sa karaw xam nga mu set. doon saa saay. wallaahi tëdd di nelaw sax. di la yëndu di la yëndu. man nag góor ku ma yëndu guddi. ma gis defar ba jóg ma. waaw defar ba jóg ma. <laughs> nee na jigéen dëgg balaa nga ko xam ne yow fajal na ko koŋ mu tijji buntu ba xool ko ci ngay xam ne kii mooy jeex <laughs> biir. góor ñi dinaa la seet si. wallaay kañ ngay ñëw. nga dégg ñun duñ la. duñ la ko wax duñ la ko wax dañ lay toog rek ñëw. Mm-hmm. bala ñoo kontaan sa fekkale ni nga yeewoo ñu. ñu fekkee la noonu ñu fekkee la noonu. si kër gi mm-hmm. kon xam nga léegi waxtu bu nekk jamono bi mu ngi soppeeku. lan laa ngi soppeeku. te jamono bi soppeeku. Mm-hmm. góor ñi tam dafa tuñ. day déet déet déet. foog si góor ñi xam nañ ne jigéen ñi suñ paree dañuy makk yow ba mel. seen taar doo ko gis. waaw seen ñaawaay doo ko gis. doo gis seen ñaawaay. suñ makk yow ba rafet. ñu ne ah man suma jabar ji ni mu jongama. jongama eh, waaye boo ko fekkee mu yeew naa ni kii du moom bukki day toog ba ndekki sax du rafet. bu jongo ma yàlla jox taar boo mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. su ko defee ñu dugg si yow. wallaay wallaay mais def na xeeti baax baax ndax nit sax nee naa jigéen sax mën naa ñaaw ndax ñaaw sax yàlla moo koy bindee nii. waaye sa jikko rafet say nga bëgg xeeti baax baax sanse ba mu rafet euh, xeeñ sa lu neex def sa yëfi jongo ma sa alaaji ñëw am na jeeg ñoo xam duñ bokk seen alaaji rek xalaatuñ ko ndax duñu wax seen i bokkutaan. allahu akbar waaw xam nga waxtaan wax dëgg ca la. wallaay wallaay wallaay wallaay sa jëkkër ngeen bëri ci ëtt bi doon def neex doomu bàjjen doomu nijaay ngeen mm. bëree mu kott la nga kott ko waane am na ñoo xam ne bu ñu la kottee da ngay dem laabi naa ni setu ganaar moom ko gën mm-hmm. waaye balaa ngaa wax kii set na baa toog nga ci sa ruq mën a kan comme sa bopp di niir sa mm-hmm. Mm-hmm. nan nga war a ma xool nday mari tey qualité yi mu am jikko yi mu am ma roy ci moom ndax nee naa jigéen warta du sa roy roy ci jigéenam lu baax baax boo koy seet ci Ndeye Marie mhm. moom rek ngay gis te loolu rek laay roy mhm. Mhm. leneen lu Ndeye Marie di def sama yónnee ko ci waane lu baax li muy def loolu laay roy loolu laay toppandoo benn jigéen waru koo magi ma gis ba mu rafet ma sol ak def lu baax def ko très ma def lu baax dañ koy roy defee jëkkëram bëgg waaye nag sa jëkkër ñëw naan ay man kañ laay dugg ci kër gi ndaw si moo ko fekkee ndaw si nangam ah loolu doy na waar wala nga war a balay fompo balay woo fompo toog ci ëtt bi di attaaya di waxtaan ba guddi nga ne sama jëkkër léegi na wàcc xaaral ma daw bale ji balaa muy si xaaral xaw ma fan la ma gan di bette loolu yëpp du xeeti baax baax sàggante la sàggante la sàggante la Ndeye Marie mm-hmm. ñun jigéen ñi mm-hmm. bu ñu amee ñaari doom sax doom ji xaw am taktin yi fottin bàyyee nañ ko sëy bi mm-hmm. mooy sëy sëy bi ñun taluñu dara lu dul natt ba xew ba ngénte la jéet la marché ba mooy sàggante rek Adja Fatou lu gën a neex ànd ci biir duus dara gooweex lu gën a neex ànd ci wanak dara du la bett minute bu nekk rek sa sa ànd baa ngay got goti jël nga sa ñaari do goye sànni ca suba ba ngoon mm-hmm. bu guddee nag nga seet xeeti baax baax ba ca na gën a neex nga teg ca jigéen ñi sàggante man dama ne sàggan moo ñu sonal mm-hmm. comme ni ko binte Binta loo waxee léegi rek ana pokotaan ana loo fay ba ana ñaqi pokotaan ak numéro xee ana loo fay ba feebar yi nekk ci àddina bi ñoo koy jox suñu bopp de kenn joxuñu ko ñoo koy jox suñu bopp nga ne dama am doom ji am tatini keroog nga gën a war a gën a mën a sëy ndax jigéen école la yaay royukaay la suuraale ni sa doom yow lay xool suuraale ni sa doom ci yow lay roy man sama taw am na 25 years léegi waaye suñu andee danga nga naan sama morom la wala sama da nga ko naan kat kii magam la léegi ma fekk ko lopitaan ni Banjul su ne Ismaay moom nga ne ko déedéet kii du sa yaay de mun leen suma yaay la waaw nit ki da bëgg sa bopp. Mm-hmm. nit da yaa ngi xale xalelu du xale xalelu nit da ngay nit ki da ngay bëgg sa bopp bëgg sa bopp ci jaamu yàlla la bokk yàlla dana njëkk a gën a bëgg lu neex ndax yàlla boo koy jaamu fan nga sell te sell sell googu ngay sell suñu borom sax ci lu neex la rawatina nag doomi aadama ni yow lépp luy bonal jigéen rek dama ne ci càggante la sama mbokk jigéen yi nañ bàyyi sàggan tuuti sàggan léegi xewwi na man dama ne man ci sama gis-gis li ma gis léegi mooy jigéen ñu bari bàyyi nañ lu lépp jigéen ñu bari yéegi yeewu nañ ndax boo yeewul sa moroom yeew te bu sa morom yeewoo jël la nga xamante ni yaa ko waroon a jël kon la nga moom bul nangu mu mu wadd keneen di ko jël la nga moom téye ko bu baax ba mu dëgër lii yaa ko moom téye ko sa fukki loxo juróom-ñett noo koy téye mooy da nga koy sàmm noo koy sàmmee naa fexe man ma xee ma seetlu xeet am na jigéen ñoo xamante ni tey boo duggee oto wala nga demaase man xam nga kañ laa bañee woon biir di gumaase dama biir di gumaase am ku yamu wóor na Seydina Muhammad ba mu yenoo romb ma damay wàccu ñetti fanu yàlla maa ngi tëdd di wàccu ñetti fanu yàlla maa ngi tëdd wàcc bala maa génne marché damay wàccu bañ téye ma ndig lan xet gu bon ndig lan xet gu bon ana lan mooy lan moo war a xet gu bon dangay wuti wuti kan wuti la ngay wuti kat na la jig nam lay jigee mooy defar ci sa bopp defar ci sa yaram fépp foo taxaw ni man damay daan sama doole bala nga ne damay daan sama doole sax nit ñi xam ne kii kat daan kati la kii day daan dooleem ndax foo ko fekk mu ngi set ci boppam foo ko fekk mu ngi boo demee këram kontaan bunti këram sax boo fa taxee dooni mu ko puusal leen ma bange am na gan yuy ñëw wala puusal leen ma lii am na gan yuy ñëw wala dawal ca saal ba gaa jëlal air fraîche nga air fraîchel ma néeg ba déedéet mm-hmm. nit ki bis bu nekk sóoraa leen ne am na lu ma war a bett du ma dara bett man mm-hmm. man bu ma dara bett bis bu nekk rek am na ko war a ñëw ci man mm-hmm. bu ma dara bett lal ba ngay lal suba la mu teel teel teel teel lalal ba mu baax lu mu teel teel yàlla bu nag bu sa jëkkër ku mel ne ma nag sama jëkkër aye fa nag bu duggee te duus ba sax yaakamti naa muy sango balay génn fekk lal naa sama lal ba bala muy génn fekk lal ba tallal naa ko ba mu tàll ñaret leneen di xeeñ ca néeg ba lu ak lam fanaanoo ah, jigéen ñi nañ mu am na yoo xamante ne jonge du la ngay simmi jonge kenn du ko wékk ah, jonge dafay nekk ci sa yaram nga koy ngay demaaleeg moom man dama ne jonag da nga koy judduwaale mm-hmm. jonge man dama ne da koy judduwaale ndax li nga xam ne booy sangu doo ko simmi kon loo judduwaale la kon li nga judduwaale la mm-hmm. nañ tray ci suñu bopp nañ tray ci suñu bopp ñu jéem a fexe jël sàggante teg ko ne le nu ñuy jëlee sàggante teg ne mooy ñu jéem a di seen ci suñu bopp lu ñuy may di boobu mooy jéem a set set ki la lépp xaj sama jëmm ji na set sama yaram bii na set sama togg ga may togg na set waañ wa may toggee na set duus ba nga xamante ni mooy lépp na duus ba njëkk set sax waañ wa loolooy àddina loolu rek mooy àddina loolu bu setee rek mën ngaa ko sa àddina yëpp neex na sa àddina yëpp neex na ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax waaye ñu toog fii ci biir télévision Star TV fàtte ki nga xam ne mooy waa solidarité Sénégambia ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ñoom ñoom ñi nekk foofu ñëpp bàyyiwuñu kenn bu ñu limee dañuy juum mbaa duñu matale waaye Adja Seynabou Cissé Kandi Touré yéen jël naa nuyoo teg ko ci seen loxo ne leen séddale leen ñu ko ci biir euh, li nga xam ne mooy Sénégambia solidarité ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di wax ni tey ñu ngi waxtaan waxtaane li nga xam ne mooy joge jigéen nan la war a joge jongee ci biir këram waaye jigéen nan la jongee war a jongee ci biir néegam waaye jigéen lan mooy léewtoom ci biir ëtt bi ba ci biir perron bi ba ci biir néeg bi ba ci kaw lal bi jigéen a di léewtoo di wut ay cangukaayam ay saafara comme ni di defee di ko sangoo cumbukaay <laughs> bi cumbukaay <laughs> xam naa seen bu siisee tey ci ngoon di ko cumbukaay cumbukaay ak lan moo ëmb <laughs> cumbukaay waaw teel a wut say cumbukaay cumbukaay nag ko waxee du ay saafara ak téere ndax doo mbër muy bëri ji ca làmb ja mm, mm, mbër mm, miy bëri ci biir néeg ca kaw lal dal ba moom nga doon ah. léegi nag xeeti parfum yi cuuraay yi fi xeeti jonge yi mooy doon sa cumbukaay balaa ngaa sa borom kër di ñëw nga ne ko ah tey dama am combat bu rëy yow ndax balaa nga naan ko am naa combat bu ne yëkk yem ci yow rek nga xam ne ndaw si na lu mu bëgg tey de wallaay wallaay am na lu jigéen du rëbb di sooy <laughs> ah. ndax jigéen ñoo yaakaar naa ne bu waa ji wàccee fekk nga sangu dóor sa xeeti muy garamb bu muy tay baas muy robb bu mu mënti doon mm. ah dina xam ne am na nooy toogee dina xam ne sama ndaw si nag tey day rëbb t xam naa ne du ma sooy ma ni naa wàcc mm-hmm. jonge jigéen baax na ci jonge waaye nag ñu koy séentu tamit ci jigéen ji lañ ko gën a séentoo ndax moom mooy toog ci kër gi di xaar sëñ bi di ko teeru di ko teral di ko neexal ndax moom la war moom moo sëy si góor ki sëy si wut kon nañu gën a góorgóorlu ci suñuy sëy nañu gën a góorgóorlu ci suñuy njaboot waaye nañu gën a gën a góorgóorlu ci suñu li nga xam ne mooy dëkkandoo ak fan bi yëpp ndax sëy nag du jëkkër ji rek goroo ngi ci njëkkee ngi ci ah. xarit yeeg ganaar yi ci kër gi sax ci sëy bi lañ bokk kon nañ leen boole ci sëy bi ñoom ñëpp waaye sant xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel fii ci biir télé bi Ibrahima xalilu ya xalilu laay xaritu yàlla mhm. Ibrahima nuyu naa la ziar la bu baax jox la sa wàcci waay yow it foofu ci solidarité Sénégal bi ñu ngi lay sant di la gërëm yéen ñuy seetaan ci internet bi tamit ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax Madali Ndiaye fële ca Amérique moom it nuyu nañ ko ziar ko bu baax a baax a baax yenn saa yi mu bàyyi ñu xel ci internet bi kon sant nañ leen gërëm leen bu baax tey ñu indi leen leen fii ci plateforme bi li nga xam ne mooy jigéen ñi ban sedd di nga dégg di cuuraay moom yomb na 25 sax day bari di nga am. <laughs> wallaay wallaay loolu euh, spray 50 euh, sax nga am. spray bu neex kon jigéen bu bañ a joŋe mbaa bañ a def xeeti baax baax ci yow la neex wala xëy na loolu mooy service euh, waaye nag bu day bari nee. ba léegi nii am na loolu man yaakaar naa ni amatut man nee naa am na. Mhm. ndax am na ñoo xam ne ju sëy bi ndax nu ñuy dawee ba am njëgu natt bi. Mhm. tontin bi ci koñ bi. yaa ngi dégg ngénte li lu ma war a ndawtale fan laa koy jëlee damay jaayi kii ne damay dugg kii ne damay génn ba war a mën a dajale loolu talatoo sëy bi talatoo njaboot yi boo génnee say doom mbaqate yaa ngi cay lang ca bunt biir gémmiñ nga léetootuñu sangootuñu toppatoo xale yi ñu ngi jàng wala jànguñu te loolu yëpp ci biir kër gi la bokk mhm. loolu yëpp luy naatal kër gi la xam naa ci kanam nag sama yaay jooju nga xam ne ñibbisi na te dama koo yeb lool muy day awakan dinaa dem ba ca moom laaj ko <laughs> jongee ak ki nga xam ne mooy yaay ministère <laughs> jigéen sama goro de yaay <laughs> day awoon dinañ ma ko wax waaw wala ma dem ci sax <laughs> fële ci Serekunda mu wax ma jigéen bu jonge bu baax a baax ñoom seen jamono nan lañ daan jógee loolu laa ko xam mairie xam nga ñoom ñoo fi dàq sëy mm. mairie bu ñu lay wax seen sëy danga naan déedéet. ndax maire yi euh, am na lu bëri loo xam ne dañ ko daan jànkonteel ci seen biiru néegu sëy mm. te kenn du ko xam waaye nag ko mel ni Binta Diallo tey bu meroog jëkkëram lu tuuti bu ma génnee ci ëtt bi dina xam ne démb jote naa sama jëkkër te loolu yëpp ci xeetu joxe la sa jëkkër suturaal sa bopp la mm-hmm. yaa ngi dégg jàppale sa borom kër jàppale sa bopp la ndax borom kër lu mu dawit ci biir kër gi la koy indi lu mu amit ci biir kër gi la koy indi yàlla tere bu demee dala fi bàyyi ci biir kër gi yàgg sa njaboot kon yaakaar naa ne lépp loo amit yow it danga ko war a jàppale te soutenir ko Adja Binta maire yi maire yi dañ dañ doon sëy mhm. maire yi ay sëykat lañ mhm. parce que dama ne jigéen yaayam mooy sëriñam mhm. te mooy jàngatam parce que jigéen bu nekk tey sa yaay sa sa royukaay la war a doon am na jigéen ñi nga xam ne nag seen yaay yi dañ sëy ba sëy jeex waaye dañ bañ rek wallaay wallaay dañ bañ rek nag buy dina jur xetax waaw parce que nit ki tey di jur sa doom nga bëgg a mu mel nii du ko mel waaye nit ki nga jur sa doom dina la roy ba yow mii ndeyam dangay kontaan kon dama xam ne jigéen gu roy ndeyam yow danga wàccee sa ndey si coono waaye boo royut sa soo royut sa ndey toujours sa yaay si gàcce rek lay dëkk parce que di nga jaarale sa doom awal nii mu ne du fa aw nit ki boo xamut sax buñ la waxalee da nangu waaye dangaa gis ko xamut bañ a roy suñ ko waxalee du nangu dafa sonna te kooku coono di moo coono dina coono coonool ay waajuram rusloo ay mbokkaam rusloo ay waajuram dama ne jigéen du ne yaay xool yére bi ne lii kat neex na ma mu jaral la nga jënd sol sanse ba jekk kon defe naa ne war naa mën a jóg yi noonu ki tax ngay sanse ba jekk du ci yaram bi du ci yére bi rek la war xool war naa xool xeet bu ne comme ni ko ajaandee mari wax rek poxotaan yi mm-hmm. tey boo ne aw ma róoroon mm-hmm. boo ko amee it di ko def say poxotaan te sa poxotaan setul xet watoo ko ba mu set raxas ko ba mu set xet gu bon lay génne xet gu bon war a génne xet gu bon lay génne mm-hmm. moom lay génne tey doomi taal bii ñuy xeeb boo ko bombee say poxotaan bu set wicc limon yomb na lool. Uh-huh. five dollars eh. sa boo ko jëlee. wallaay raxas ko say poxotaan mu set. mu set wecc du am benn xet. def nga déodorant defuloo déodorant day set. loolu xet. day set wecc doo am xet. dafa mel ni ganaar tey boo ko raxas tey. wallaay wallaay eh, jëloo xorom jël limon jël vinaigre. sëcc ko ba mu set uh-huh. ak vinaigre. Uh-huh. nu muy mel. dara boo ko lekkee day sëcc. day sëcc wallaay wallaay. gannaaw gi sëccee noonu la nit di sëccee. waaw kon jigéen ak i ruqam. wallaay wallaay jigéen ñi nañ jóg si seen bopp. tey sa jëkkër wàcc kottu la. am xet ku bon. kooku du yàkkamti pour kott. wallaay dootu la kottati dootu la kott. di nga gis ni muy maniéroo. nit li muy maniéroo mm-hmm. su ko rusee wax it di nga ko gis. di nga ko gis yow. Mm-hmm. waaye tey nga kotta sa jabar. mu neex lool xeeñ lu neex. góowee gi sarxatan bi di gilli. bokkoote boobu jabar doo ko bëgg a bàyyi. du ko a bàyyi yaay faj saña sedd bi mm-hmm. góor day sedd sedd boo xam ne mm-hmm. day jéggi dayoo mm-hmm. te jigéen am na tàngaayu yaram buy génn ci génn ci moom jigéen bi day góor bi day soxla tafu ku góor jigéen ki kole ko nga gis tàngaay bi jóge ci jigéen ki day dem ci ku góor gi ba seddaay bi day wàññeeku waaye am na ñoo xam ne mel ni badee rek daal <laughs> badee daal <laughs> ñooñu noonu noonu <laughs> ñooñu noonu duñu seen jabar ba dee daal waaw ñooñu <laughs> sañu ñoo tudd seen tur waaye ñooñu duñu bokk seen jabar <laughs> because jabar nag waaye booy seet booy seet booy seet booy seet jigéen ñi ni ñu jongee noonu la góor ñi jongee waaye góor balaa jongee dëgg sa jabar set mhm, moo lay mhm. sa jabar mhm. du bàyyi dara ci sa yaram lépp sa xem sa lépp lay xemmem <laughs> kon yal nañu yàlla boole ci kon yal nañu yàlla boole lu lépp la fi wax kon yal nañu yàlla boole ci ci set daal wallaahi toog di ko nettali te mënuloo koo am ah, ah. fam ma jaarale fam ma yi ah, yow nga ni man de sama jëkkër du may def loolu wallaahi wallaahi mën na la koo def de wallaahi lan moo tax du la ko def mm. set ba war ci yow wallaahi gisu ko wallaahi nekku ci yow lépp lañ gën mën a wax ci wallaahi wallaahi mënuñoo wax doy na waar doy na waar <laughs> te soo ko seetloo si jigéen uh-huh. parce que góor tey di nga gis euh, moromi góor invité la kiram mm-hmm. nga dem gis jabaram ni muy defee wallaahi ak ni muy doxee wallaahi ak set bi si moom mm-hmm. nga nim sa ko lool mm-hmm. tey góor ñi takk jabar yu bari yi ñuy def yëpp si loolu la di fàtte ko ñu seet ku baax because tey da ngay gis sa jabar nga bëgg a mu mel ni mu war a mel fu yére rafetee nga jëndal ko wallaay wallaay nga jëndax wallaay parfum neexee nga jëndal am na góor ñi nga xam ne ñooy jëndal ko wéy yeeg fer yi lépp ñoo koy jëndal si jigéen ñi mun na luñ ko seen bopp xamuñu ko nit ki soo xamut suñ la junjee nga war a xam nga a xam. Uh-huh. a toog sa jëkkër di la jëndal fer. di la jëndal ay fon mm. di la jëndal wallaay mu lay jàngal soo xamul jàngal. Mm-hmm. te nga nangoo jàng. Mm-hmm. bu ko defee benn yoon yow loolu war sa xel mm-hmm. ah, ne. bëgg na lii gisuma may def lii de moo tax mu def ko moo tax wallaay ci la xeeti baax baax yooyu. xam ne lii luy uh-huh. bëggal sama noonu Adja Binta dafa important si jigéen. wallaay wallaay. ma ne fu mu ne ma de. ah ko yàlla ah, may de. Eh, eh, maa ci <laughs> aay. soo ah. ah. si waaye yow lii la. Mm-hmm. waaw waaw aay réew la woon. wallaay réew la woon. parce que jigéen bu sëy tey. Mm-hmm. ba sëyatuloo. na mm-hmm. nga mel rek ngaa continuer. wallaay mos nga déedéet ku ma mus xam si nii nga ma xamee. Mm-hmm. soo waxee suma morom bi doom yi. Mm-hmm. ah ma dee ñun moom yi ñun dañ ñun dañ waar moom yow duñu ko bàyyi. déedéet déedéet xanaa ma dee. Mm-hmm. loolu yëpp la ak bugg sa bopp nit dangay bëgg sa bopp dangay bugg a sa bopp. Mhm. Wolof mhm, mhm. Njaay nee du bañ naa la wallaay. waaw Antifa Sagnang sama yaay. ma naan ko Antifa Sagnang sama yaay xol boobu. Uh-huh. da nga fee wax loo xam ne uh-huh. eh, jaay naa ko ci télé bi. waaw sama yaay dégg ngeen li mu wax boobu jënd nañ ko sax. waaw <laughs> ban paa moo ne ci xobi. paa bu daame bu bu noonu noonu laa soxla ci sama yaay ji. <laughs> waaw kuy fëgg eh, eh, daanaka waxtu bi dab nañu. Mm-hmm. waaye Ndeye Marie jigéen ñi ay jàmbaar lañ mm-hmm. rawatina ci liggéey bi nga xam ne ñii ngi ci ñaw mi mm-hmm. ñii ngi ci napp mi mm-hmm. ñii ngi ci lu nekk di daan seen doole lu ñu yóbbu seen kër ñu seetlu la yow it yaa ngi yëngu ci ñaw macha allah ñëw nga ba ñaw <laughs> li ñu bañ a tudd anti guy waaw euh, fa kii ndey mari ñëw na ba ñëw loolu noonu <laughs> waaw waare ba léegi rek mooy loolu anti guy jógal jóg jot na jógal na de ñaw bi fi mu toll nii. Ah, mu nekk loo xam ne jigéen ñi tamit dugg nañ ci bu baax. Mm. ndax seen jàmbaar. Mm. waaw ah na moom macha allah sature na waaye nag ah, nañ xëcc rek. Mm-hmm. ndax lii ñuy naan ah, xëcc bu dagul rek dina egsi. Mm-hmm. ak lu mu saturé saturé saturé nit ki nekk la nga bëgg rek. Mm-hmm. comme nañ ko waxee woon keroog rek am na loo xamante ni yaa koy taamul sa bopp muy métier. te métier ba nga def ci sa xol rek mooy métier bi noobul ci yow. métier bi noobul ci yow boobu rek nga mën a dundee. lan da ngay ñëw ba boo tëddee sa kër da ngay ñëw ndig lan danga ko bëgg mu nekk sa métier nga taamu ko ni lii laa bëgg te métier la boo xamante ni macha allah ñi ci nekk ñëpp tey ñu lu tax ñu nekk ci ndax saa yoo xoolee rek diñ ci gis sa bopp saa yoo xoolee rek diñ ci gis sa bopp rawatina ñun jigéen ñi am na foo xamante ne bu sañse jotee da nga naan foog ma dem ca diw diw diw li muy sañse la muy solo lay soloo te la muy ñaw lan lay ñawee kon lu mu saturé saturé sature nañ leen jàpp kon ñëwkat yi desuñu gannaaw desuñu gannaaw te duñ mës a des gannaaw hmm. binte yaa mën a yaa gën a xam ne tey ku fi ku fi fi tedd rek ñu na ah. wallaahi fu waaye taxaw rek ñun la kon baax na ah. fu waaye mënti taxaw rek ñun la suñu patron de ñëw ma ci gërëm sama yaay jooju noonu Adja Adja euh, nu mu tuddati sax sama yaay bu xool jooju noonu nga xam ne bu mu jógee Angleterre yaa gut ñu naan yaay jooja faal hmm. day tëdd ba Angleterre naa ma Mariam lu ma war a ñëw wala Mariam lu xew hmm. wala Mariam loo may defal ci lu baax boole ku baax ku ne nag moo tax tiituma dara damay jékki dékki woo nit ne ma kar téléphone ne ma yaa joojoo ma booleeg yow ma ne ko macha allah mm-hmm. ah am na foo xamante ne buñ fa tolloon nañ leen jàpp rek Binta mm-hmm. ndax ci li ñu nekk métier noble la mm-hmm. lan mooy métier noble métier bi nga xamante ne ku la xool ci seetu rek gis la kon loolu noble la noblesse la metti na nag moom fi mu ne nii moom metti na ndax ku ñëw ba ñëw loolu ñuy bañ a tudd xam ne fi mu ne metti na waaye nag nañ ñu gën a jàppale rek di woowaat suñu yaay yëpp rek yow it nga yëngu ci ñaw macha allah ñaw bi jamono ji ñu gis ni ah wax dëgg yàlla amoon nay jamono ñaw yëpp ñoo ni tekk mm-hmm. ak lee yëpp ñoo ni tekk mm-hmm. waaye fi mu toll corona macha allah macha allah mm-hmm. commencé waat nañ di liggéey ñoo gi tey noo ko gisee sant yàlla boo toog bi ko sa bopp mm-hmm. dafa nekk lu la neex mm-hmm. te nit ki lu la neex rek mm-hmm. dang di ci góorgóorlu tey man dama juddu fekk sama yaay ak sama papa yëpp di business sama sama papa nekkoon am atelier bu mag di ñaw ñoom anti nday awakan mii ngaa gis ak ñoom anti ajaa ak ñu bari sama papa moo leen doon ñawal ndeysaan sama papa anti nday awa léppam paa bi la woon mm-hmm. passeport am bi mu ko amee ID lu nekk paa bi soo waxee rek mu ne Pa Sagnang mooy suma doom bu góor loolu ñoom anti nay awa xam nañ ci dara moo mm-hmm. daan ñawal mm-hmm. kon man ma juddu jël métier sama papa di ñaw suma yaay nekkoon business woman bu mag di fu ne di dem di ñëw di jaay nekk jigéen góor dafa daan doole mbéxey dee incha di jaay lu ne mm-hmm. man it ma jëlaat loolu mm-hmm. def ko fashion shop mm-hmm. man it di jaay comme la sama yaay doon liggéey ma boole sama bu yaay ak sama bu papa boole ko di liggéey ma tuddee ko nag Mbowen fashion ak tailoring shop muy fashion ak tailoring shop fashion bi suma yaay tailoring shop bi suma papa kon nag di wane ne liggéey bi macha allah mu ngi dox ñawkat yi tey comme ni ko Adja Ndeye waxee rek ku fi jekk rek ñoo la ñawal. wallaay wallaay ku fi sanse ñoo la ñawal. Mm-hmm, mm-hmm. ku mel ni ñoom anti ndey awakan. Mm-hmm. ak ñoom. ñoom ñoom suma yaay yooyu noonu. di anti caankan caankan sama njëkke ju baax jooju noonu. <laughs> sama chéri boobu noonu. ñoom anti Aida. seen ñooñu man suma rôle modèle lañ. taxi ñooñu ñëpp dañ ma daan ñawal ndeysaan tay bi suma ki ma doon si yàlla nekkee ministre dañ su ma mhm. ñëwee tasaare su ma ñawi ndeysaan ñoom ñii ñoo ma daan ñawal mhm. su programme yi amee su ma demee ñu kontaan ku mhm. nekkal li ma ñawal su ma ko nga bëgg kon ñun suñu royee si suñu yaay yooyu rek foog ñu doon ay jàmbaar macha allah foog ñu jéem foog ñu try kon macha allah képp kuy yëngu si ñaw ak business ak fashion shop di jaay jaay ak jënda yal na yaara barkeel ak ko wallaay anti nguy ma daan ñawal ñaw yu rafet nuyu nañ ko bu baax bu baax a ngoog Euh, jërëjëf niñ ko doon waxee niñ ko commencé macha allah dañ naan alhamdulilah rabbil alamina àgg na ci jàmm ak salaam. Mm. waaye santaar rek ki nga xam ne ndax dama naan bu lëg lekkee olom ne ko gërëmee cooy dañuy sant borom kër gi muy Hadji Baniko ak Alpha mm. Mm. ak Saara Kamara Saara Kamara waaye fàttewuñu Mistaba moom it ci macha allah ci liggéey bi euh, gërëm xale yi nekk euh, équipe technique yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fàttewuñu Mariama sama doomu xol boobu maa ngi koy nuyu nee naa borom atelier boobu tuddee li nga xam ne mooy jongama couture yi fi jongoma rek lay def xale boobu bu yeboo ngeen daw seeti ko euh, macha allah mu ñëwal leen lu baax a baax drianke yi fi toog nag kenn ku ne yor nga atelier mm-hmm. waaye nag euh, maman Fatou ñawal na ma lu rafet a rafet maa ko mm-hmm. sañ a wax keneen kaa ngi ñëw euh, mooy loolu na ñëw daw seen kaw na ñëw na ñëw macha allah <laughs> waaye <laughs> nuyu Serigne Ngom Babul Mouridina moom nga xam ne wax dëgg yàlla ah sama alaaji as boobu nuyu naa ko bu baax jox ko wàccu waayam mm-hmm. ñaanal ko yàlla sàkku ci saa su ne yàlla ko yàlla def defal jàmm nday awkan ci kaw ci kanam ci lu baax fédération bi ci mm-hmm. kaw ci lu baax mm-hmm. mm-hmm. macha allah jigéen ñi takku leen dool benn ndax yaakaar na li ci kanam moo raw yi bët incha allah rabbi ñaanal jigéenu Gambie yépp yal na leen yàlla defal jàmm jigéenu Gambie yépp ak góor ñépp yal na leen yàlla defal jàmm xam naa ba beneen yoon si beneen programme ci kàttanu yàlla jërë ngeen jëf